mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy waxtaanee tàggat yaram ndax xam ngeen ne dimanche bi ñu weesu ci la Sénégal am lu mu musul am muy nekk champion d'Afrique ci wàllu football loolu nag ñu yàgg ko xaar ñu ngi dégg ne depuis 60 ans depuis ñu moom suñu bopp ñu ngi ci football bi di yootu étoile boobu biddéew bi euh, bi weesu la yàlla dogal ñu jot ko wante nag yoon bi euh, tàmbaliwul tey euh, ñàkkul ne def nañ ci ay liggéey yu mucc ayib wante yitam faw ñu xoolaat li fi ñi jiitu ci football euh, jëmbat ba tax na tey xale yi nga xam ni ñoo nekk ci peggu Aliou Cissé mën a daal di kon yegg si ci bilépp résultat ngir waxtaanee loolu yëpp nag dañuy dalal Mbaye Jacques Diop journaliste la mais day xelal aussi ci wàllu jokkoo jëwriñ gi ñu dénk tey wàllu tàggat yaram Mbaye Jacques ñu ngi lay nuyu amaat mbégte dalalaat la ci démb ak tey ngir waxtaanee wàllu tàggat yaram. waaw Fatou Thiam maa ngi lay fay euh, dina la nuyu di nuyu aussi tous les auditeurs de Rewmi FM kanu di am rek te ñëwaat ci démb ak tey parce que démb dafa doon émission boo xam ne c'est tellement suivi parce que dafay euh, coller à l'actualité di coller aussi euh, lu ñuy wax naan maanaam lépp li nga xam ne dafa nekk par rapport à la féodalité et le modernisme donc euh, ñu ngi nuyu ñëpp daal. Mhm. jërëjëf mbay Jacques ñun itam am nañu mbégte di waxtaan ak yow di la gërëm aussi ci disponibilité bi ndax tey sori nga par exemple yaa ngi ba ba Kaffrine mais euh, yaa ngi ñuy euh, aussi may euh, jotu waxtaan ak ñun alors ni ma ko waxee liggéey bi mujjee naa sotti Sénégal jot na ci li mu doon yóotu boobaak léegi soixante ans depuis ñu moom suñu bopp donc tey ñu mun a jàpp itam ni ma ko waxee sànq ne yëf tàmbaliwul tey am na mag ñu fi jiitu am na xëy na njiit yu fi jiitu aussi am lu ñu tàmbali woon bu ñu delloo démb mbay Jacques euh, euh, Sénégal di yootu football bi lan lañu ci mën a jàpp di yootu étoile bi ci wàll football lan la ñu mën a jàpp si li fi mag ñi jiitu. Euh, waaw d'abord dañuy dañuy dellu di sant yàlla. Mm-hmm. parce que ndam li ndamu Sénégal la ndamu réew la réew bi yëpp la ndawu askan wi la ndawu aussi Afrique de l'Ouest la ndawu sous région bi la. di wax rek nekk ñun suñu football Fatou yàgg na. Euh, indi ndam. yàgg na indi ndam parce que soo xoolee Sénégal depuis du temps de l' Afrique occidentale française moo doon dominer ses équipes nationales et ses clubs. ku mel ne ay e Sénégal ku mel ay Union sportive Gorée la Saint-Louisienne la Jeanne d'Arc de Dakar ñooñu dañu doon ay équipes yoo xam ni dañu dominer longtemps sur la scène africaine parce que boobu amul woon Coupe d' des Nations amul woon. Euh, euh, li ñuy wax euh, ay Jeux africains mais dafa amoon la coupe de l'AOF mbir mi di dox di dox ba Sénégal am indépendance bi Sénégal amee indépendance aussi xëy na jëluñu raaye mais au niveau de la li ñuy wax au niveau de l'UEFA l'Union des fédérations ouest africaines Sénégal fu ëpp titre moo fa ëpp titre donc loolu moo lay wan ni donc football dañ ko yàgg di jëmbat xëy na tey la ko yàlla tuddoon tey Maroc a ngi nii moo ñëpp moyen mais benn yoon la mos a jël coupe d'Afrique ko hmm. ku mel ni Tunisie benn yoon la ko jël depuis quatre depuis deux mille quatre ba léegi jëlu ko te ñu final ñoom final ñu ko comme Maroc ñu final ñu ko ba tax na soo xoolee Sénégal seen football mi ngi mooy li ma la ci Afrique occidentale française mais en dehors de l' Afrique occidentale française au lendemain des indépendances l' du Sénégal a été créée parce que bu ñu fàtte ni équipe du Sénégal gêne les Jeux africains d'Antananarivo c' était en 1959 l' équipe Sénégal gêne les Jeux africains d'Abidjan en 1961 mais déclic bi mi ngi gën a ñëw ci en 1963 les Jeux africains de Dakar les Jeux de l'amitié ci les premiers Jeux de l'amitié parce que les Jeux de l'amitié yi dafa am Antananarivo am Abidjan troisième édition bi nekk à Dakar bi mu amee Dakar ci la Sénégal njëkk a jël raaya bi ñoom El Hadj Malick Sy Souris ñoom Youssou Ndiaye ñoom Lamine Koura ñoom Demba Coy ak ñoom euh, Lamine Koura ñoom ñoom Maréchal Thioune ñoom ñëpp donc ñooñu ay ndaanaan yoo xam ne la ñu woon ay ñoom Yérim jaañ ay Bouba Diakhao le prince de Thiali donc ñoom ñëpp ñoom Jules Diop ñoom ñëpp ñu indi ndam li mu nekk lu rëy ci Sénégal parce que Sénégal dafa gagné demi-finale la France gagné finale Tunisie. Mhm. donc loolu moo lay won ni loolu c'était le premier trophée major de l'équipe nationale du Sénégal de football. D'accord. di dox. Sénégal dem li ñuy wax jóge 63 dem Tunis 65. Hmm. Tunis 65 mu dem fa war a jouer final. te yëg final bi li ci xew. Hmm. parce que Sénégal dafa gagné Éthiopie 5-1 Tunisie gagné 4-0. Hmm. ñu ne Sénégal. dafa encaissé dañ Sénégal toog na dafa encaissé xam nga boobu. amuloon goal différence goal average moo amoon parce que ñu bari xamuñu football. dafa am différence entre goal différence ak goal average. boobu goal average bi dafay xool ku encaissé wul xam nga goal différence ak goal de goal average dafa wute ñu bari xamuñu loolu. ci football Sénégal malheureusement Tunis dem. Euh, barki démb maa ngi dégg sunu mag laay jaw di wax boobu dañu invité woon Sénégal mm-hmm. Sénégal boobu kenn invité wu ko woon. Mm-hmm. Sénégal dafa gagné woon Mali. d'accord pour qualifier. Mm-hmm. donc loolu aussi il faudrait que ñu restaurer un peu les faits. pour l'histoire parce que pour ceux qui nous gouvernent. waaw loolu mooy dëgg parce que il faudrait que parce que histoire peut-être que laay dafa juum. mais ñu delloo loolu. ñu ñëw dem aussi en dix neuf cent soixante huit Asmara mhm. ñu am équipe bu mag a mag ñoom ñaamataar euh, ñoom Louis Camara ñoom Amady Thiam ah ñoom Demba Coy ah ñoom Yérim Diagne mhm. ñoom ñoom du jong ah ñoom ñëpp ñu waroon tamit équipe boobu ndeysaan jël benn bii boo xam ne à la toute dernière minute mhm. contre le Ghana ñu fa lañ fa jógee au moins mu daan bu doon espoir boo xam ni l'espoir de tout un peuple. Mhm. ñuy muñ après nag ñu toog une très grande léthargie. parce que mhm. toog nañu après 17 ans. Mhm. de 68 à 1986. soo xoolee sur le match contre Zimbabwe. c'était le 1er septembre 1985 dañ parce que dañu dem 15 jours auparavant dañ dem Zimbabwe gagné ñu 1-0. ñu ñëw war a joŋanteeg ñoom fii ñu indi fii. ci la ñoom Amadou Diop Boy Bandi nekk hmm. ci la ñoom Moussa Diop Kenam ci la ñoom Cheikh Seck ñoom Bokanda ñoom Cheikh Sidiane Fall ñoom Pape Fall ñoom Roger Mendy Racine Kane hmm. ñoom Mamadou Taw xam nga ñoom Pape Fall ñoom Oumar Touré xam nga ci la ñuy ñëw ñu def un match historique un match mémorable hmm. Sénégal gagné ko 3-0 3 buts de Bokanda jour boobu pratiquement ci la Thierno Youm révélé woo au public sénégalais parce que boobu mi jaraaf di toj mais je pense que ci la gën a révélé woo au public sénégalais parce que il avait fait un excellent match boobu mos Moussa Diop kenam boobu ndeysaan dem si yàlla Pape Diop ak Yérim Diagne ñoo mhm. doon de l'équipe sénégalaise mooy en dix neuf cent quatre vingt cinq ci septembre ñu gagné Zimbabwe trois zéro bi ñu gagné Zimbabwe trois zéro ñu qualifié coupe d'Afrique des nations après dix sept ans d'absence mhm. ñu war a en Égypte jeudi jeudi soo Égypte Sénégal boo xoolee match de référence am en équipe nationale match de référence laa lay mhm. man match de référence bi ma gëm dëgg dëgg dëgg mooy match contre Égypte parce que l'Égypte à l'époque le stade faisait cent vingt mille spectateurs hmm. boobu le président Hosni Moubarak moo nekkoon au pouvoir et puis xam nga à l'époque l'Égypte était pratiquement dafa doon génn ci après la guerre de six jours du Kippour là hmm. donc ñu ñëw ñoom nekk aussi une grande équipe boo xam ni dafa joué à contre Argentine match amical. Mhm. te nekk une très très grande équipe. ñu ñëw ak ñoom ñu ne ñoom voilà ñoom football ak kenn sportif poussé bi la football Sénégal parce que boobu ñu bëri xamuñu Sénégal. Mhm. ñu def un excellent match Sénégal gagné ko un but à zéro. waaw bii de bii de bii de bii de bii de Thierno Youn. Mhm. Thierno Youn moo ko dugal sur un centre de Boubacar Sarr lokot mu nekk un une victoire boo xam ne victoire mémorable pour le football sénégalais. mais damay revenir rek un peu sur l'histoire avant may ñëw foofu. waaw bi ñuy bi ñuy ñëw foofu. Hmm. dafa am ñu togg équipe bi. ku mel ni hmm. je pense à Mbaye ku mel ni Sega Sakho. ku mel ni Ndofène Fall. Hmm. ku mel ni Ibrahima Faye di génn àdduna démb ku mel ni ay ñoom Sita. ñoom ñoom sa Ndiaye parce que moment boobu. ñoom ñu ngi dominer au niveau de la sous-région. parce que boobu ay ñoom Magnati Fall ay ñoom Sagar Koné on avait une une bo benn génération boo xam ne de jours talentueux. mais amuñu saafu qualifier Coupe d'Afrique des Nations parce que boobu d'abord y avait l'arbitrage maison hmm. mais chaque fois aussi on nous mettait aux prises avec euh, soit le Nigeria parce que ñun gagné nañu fii Nigeria hmm. trois buts à un boobu Mawade Wade ay ñoom Ndofène Fall ay ñoom Sega Sakho ay ñoom Kozobio Ibrahima Ba ñoo joué match bu fii benn match samedi ñu gagné leen trois trois un ñu dem foofu ñu tegal Mawade ay xaj hmm. ñu gagné ñu deux zéro à Sourouléré Ah waaw wala après ça l'enfer de sourire ñu tegal Mawade xaj. Hmm? ba Mawade mënul jóg comprendre nga ñu gagné leen fekk boobu c'était le dernier tour qualificateur te année boobu le Nigéria jël coupe dafay am quatre-vingt. Hmm. quatre-vingt le Nigéria jël coupe premier son premier trophée donc loolu moo lay won ni histoire Sénégal tey yaakaar naa li am fii. Hmm. dafa am su ko togg di ko liggéey. muy ñor di ñor parce que tëbul tëb rek ñu ne ne te ñooñu condition yi nekkoon. ñoom daan nañu sax génne seen xaalis. daan nañu jël seen xaalis di ci di ko génnee di ci paas paas. Mm. kon boobu prime yeeg yi ñuy wax yëpp tey amul woon. non amul woon prime. Mm. boobu ñoom xam nga fa la ñoo regroupé. Mm. ah Sineps si Thiès wala ENEA wala Iba Mar Diop bi ñu doon centre national. d'accord fa lañ daan regroupé bu ñu regroupé ay ceeb yoo xam ne leen doon jox comprendre nga amul prime des fois nga jóge fa des fois ñoom ñu génne ci seen poche sax jënd essence. Mm-hmm. pour. au moins bis bi car euh, car bi nga xam ne car bi ñu abal parce que car bi souvent waa ANACIM ñoo ko doon abal. Mhm. wala ay car rapide lañ daan donc loolu moo lay won li donc football bi avancé na. Mhm. football bi donc ay hôtel yoo xam ne dañu dëkk mhm. yoo xam ne kenn xamul woon doo ko a imaginer wala ñu dëkk que day dem yooyu dina bëgg rey dina mat. day ngand yooyu yoo xam ne ay mutu mutu. donc loolu moo lay won ni Sénégal am na fu mu ñu amoon nag aussi ay de très grands dirigeants de très grands dirigeants. saa hmm. ñu ko réeree mbir. parce que maa ngi ciy fàttaliku suma nijaay Medoum Dieng ñoom euh, Lamine Diack maa ngi ciy fàttaliku ñoom Ablaye Fofana ñoom Amadou Ablaye Ba Zënd. Hmm. sama papa Pape Mata euh, euh, Matula Diop. ñoom Ababacar Lir bu Thiès c'est le premier président boo xam ne ici d'une région. Hmm. président premier président de la fédération comprendre nga. donc ñooñu ñu nekkoon aussi ay ñoom ñi nga xam ne ay Guitambert am ay El Hadj Malick ay Abdou Sow ay Yoro Sow ay dirigeants yu mot yoo xam ni c'était des éducateurs parce que équipe nationale bu njëkkoon boobu ay foot footballeurs yi c'était de grands dirigeants c'était de grands footballeurs mais aussi de grands intellectuels parce que c'était des enseignants mmh. c'était des étudiants c'était des cadres dans des structures loolu moo lay yoon bu njëkk football ñoom dañ ko defoon passion mais dafa ñu ko mmh. donc euh, tey ñu jamono di dox di dox ñooñu amuñu chance su qualifier équipe nationale du mais talent bi ñu amoon mooy Séga Sakho da koy fàttaliku toujours ñun booy sunu maam Sarr mooy dañu teel a hmm. parce que ñoom talent bi ñu amoon defe naa ni tey génération yi amuñu ko moyens yi ñu amoon. Hmm. logistique bi ñu amoon ak prix yoo xam ni ñoom bu ñu doon imaginer que am sax prix bu cent mille. Hmm. ba ñu di am ay prix bu que ñoom benn prix xam nga ñaata lool. deux mille cinq cent francs. ah waaw boo boo foolee kañ après nga am cinq mille paas xam nga loolu patriotisme la. tey ñooñu. au moins war na ñaan yàlla yàlla may ñu am ay doom yoo xam ne ñu mel ne ay Sadio mhm. ñu mel ne ay ñoom Koulibaly Kalidou Koulibaly pour au moins ñu fay leen ñoom li ñuy liggéey ci football donc mhm. football commencé wu tey équipe nationale. Mhm. après a amoon aussi ay dirigeants yi. mais amoon aussi ay entraîneurs yoo xam ni ñu ma doon entraîneur. je fais allusion à Lamine Diack mi allusion à Jo Diop. je fais je fais allusion à Madi Koyaté ñu koy wax maître mu nekkoon entraîneur par exemple ku nga xam ne mooy euh, euh, tonton Gaskaay sama sama sama sama magu papa la. Mhm. je fais allusion parce que moom euh, c' était un psychologue. je fais allusion aussi à Oumar Sarr ak Youssou Touré Tunti ñu koy wax Pene ñooñu ay entraîneurs yoo xam ne la ñoom tey bu leen fi fekkoon tey je pense que bu ñu jooy j'ai laissé. léegi nag boo xoolee ossature bi daraaf gendarmerie aspa police dañ ko doon mottali ci ay Linguère mhm. ay SRIB ay ñaar yëpp ñooñu doon commencé soo xoolee. boobu ossature équipe nationale bi. Jeanne d'Arc la woon. Jaraaf de Dakar parce que Jaraaf c'est la plus titrée en termes de coupe du Sénégal et de championnat. mu nekkoon Jeanne d'Arc Jaraaf Gorée ak à un degré moins de Saint-Louis. ak police ak ASFA. parce que police ak ASFA dañ leen créé woon aussi pour ñuy gën a dooleel sport Sénégal parce que dafa amoon le sport scolaire le sport militaire le sport universitaire ak le sport civil les clubs moo doon les clubs donc ci wàllu woowu ñu amoon aussi une grande équipe nationale boo xam ni chaque équipe mënoon nga ci génnee onze internationaux gendarme mënoon nga ko ci génnee. Mhm. jaraaf mënoon nga ci génnee ay Baye Touré ay Badugay ay Ndofène Fall ay Mbaye Fall ay Attila ay ay ay ay ay ay Léo ay ñoom Jara gardien ay ñoom Demba Mbaye ñoom Birane Ly nga dem gendarme ko aussi nga dem foofu fekk fa ñoom Kamu ñoom Petit Kon Koné ñoom ñoom Kona dem fekk fa ñoom Alpha ñoom Tidiane Sy Alpha Touré Sebal Fou asfa nga dem fekk fa ñoom Yaama Góor ñoom Pacako ñoom Kulibali nga dem police nga fekk fa ñoom Cheikh Tidiane Fall ñoom Sita ñoom Jaxu Gay aussi Umar Diop nekk fa nga dem fekk fa ñoom Abdou Ndiaye hmm. ñoom Medoune Mar donc loolu moo la doon woon c' était le charme de l' équipe nationale on avait une équipe à base locale et équipe base locale boobu tey soo leen boole woon ak la génération de Sadio Mané ñii mënuñu leen ça je peux en je peux ça je peux l'affirmer de façon péremptoire hmm. donc C'était pratiquement ce qui ont fait l'histoire du football, parce que même s'ils n'ont pas eu la chance de jouer une Coupe d'Afrique des Nations, mhm. mais en tout cas, ils ont tracé pour que l'équipe nationale, y, au moins, parce qu'ils ils ont dominé. Ils ont dominé la région ouest africaine. Moi, moi parce que je pense que il faut à Sénégal, <coughs> daf ko jëloon jëloon jëloon jëloon jëloon ba ñu ne nañu bàyyi il faut parce que amatul enjeu. Hmm. loolu moo il faut te football on avait de très grands footballeurs. Mhm. et c'était des footballeurs yoo xam ne élégants rancés da nga daan dem nga gis Sega Sakho teg corner dugal ko nga gis Ndofène Fall teg teg teg coup franc dugal ko nga gis mbay Fall comprendre nga Cheikh Fall Cheikh Fall génn fële centré ko mu dugal nga dem nga dem Jean nga ni Jean Jaraaf mën nañu Jaraaf nga ni Mbaye Fall day dugal nga ni mën nañu Jean nga ni non Christophe dina dugal wala Cheval Fou wala kii donc loolu moo doon le charme du football. loolu moo doon charme du football. Mhm. parce que soo xoolee tey équipe nationale Sénégal. Mhm. ñi nga xam ni internationaux yi yi nekk ay locaux ñoo ëpp internationaux professionnels yi. internationaux locaux yi laa la wax. yoo xam ni ñoo ëpp internationaux professionnels. parce que bu nekk équipe bi base bi yëpp locale la wax. Mhm. c'est une base ossature locale. ñu ay entraîneurs yoo xam ne dañu demoon jàngi dans les pays de l'Est ku mel ni Koya mel ni Pape Diop ñoom ñëpp c'était des des professeurs soit ils avaient fait l'INSEP voilà, ils étaient issus de l'école, euh, par exemple, de l'école des pays de l'Est comme euh, la, la Hongrie, la République tchèque, l'Allemagne de l'Est. Donc, vous imaginez. Donc, loolu moo taxoon ñun ñu amoon pratiquement un, football boo xam ni c'était un football vraiment très très très très très mm. mais parce que xam nga xam nga l'école de la Hongrie avec euh, le système MW 4-4-2 qui joue avec deux milieux de terrain quatre défenseurs deux milieux de terrain et aussi quatre attaquants. Mm. deux avant centre ak un un numéro un numéro neuf et deux ailiers un ailier droit un ailier gauche. Hmm. c'était ça le charme du football. Hmm. donc ñooñu muy dem àdduna dem jamono di neex ba ndeysaan ñu dem Caire 86 après bi ñu jógee Caire 86 demuñu 88. Hmm. demuñu ñu dem Alger 90 Alger 90 c'était pratiquement la première Coupe d'Afrique où Sénégal qualifié en demi-finale. te bi Sénégal di qualifié en demi-finale Cameroun bii la dóor maa ngi fàttali ko coup franc Moussa Ndaw bi boobu Sénégal y avait que trois professionnels hmm. y avait Jules François Bocandé y avait Souleymane Sané y avait Moustapha Diagne comme demi-centre hmm. boobu mi ngoon Grenoble dañ daan dem dañuy jouer ba pare delluwaat wala seen équipe soxla leen ñu dem la preuve bi ñuy jouer Cameroun Bocandé jéewul Souleymane Sané jéewul dañu dellu seen club Metz kii mi ngi woon à Wattenscheid en Allemagne hmm. ñu dellu foofu Moussa jour boobu moo gagné match bi moom ak <coughs> Adama Cissé excellent match ce jour là Adama Cissé boobu Cameroun bi ma lay wax yabele Emmanuel Koundé Koundé ak Lamine Sagna les Emmanuel Koundé ñoo fa nekkoon. Mhm. comprendre nga ñoom c'est Stéphane Tatao comprendre nga ay ñoom ay ñoom Oman Biik ñoom François Kanam Oman Biik les Kanam Biik ay ay footballeurs yoo xam ne de de grand renommée international qui jouait dans le monde professionnel. Mhm. donc ñu dem qualifier demi-finale dajeeg Algérie. Algérie c'était pratiquement le pays organisateur moo organisé Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy dajeek Algérie mu nekk match bu méttee métti métti ñu ne tel Algérie dugal par Jamel Manan ñu dem Sénégal égalisé par Adama Cissé Adama Cissé moo égalisé ñu joué match bi am fa benn balu Lamine Sagna waaw ndeysaan bal boo xam ne Lamine Sagna bon il a été victime de de parce que boo gën a tur ci équipe bi boobu xale mais c'était un excellent footballeur. Mm-hmm. excellent footballeur tuuti mais raase raase jour boobu tey Lamine Sagna dama koy fàttali ko Sadio Mané. Hmm. mais il était plus doué que Sadio Mané. d'accord et puis plus explosif. ba pare c'était un milieu trop technique. Hmm. ba pare chiqué waaw mais après sax dafa dem signé ji à Bordeaux Bordeaux ñoo ko jëndal. ok signé ko donc ñu dem après ñu dem deuxième ñu dem kii dugal ñu deuxième bi euh, Algérie. Hmm. dugal ñu deuxième bi par Chérif Oudjani moo dugal deuxième bi bi Chérif Oudjani dëgg dugal deuxième bi bi deuxième mi-temps Sénégal au moins pratiquement match bi ci contrôler match bi presque dans dans dans la dans dans moitié du terrain mhm. euh, de l'équipe algérienne am na benn ndeysaan anecdote bi Bocandé di wax am na benn bal bu fa mu floré poto bi dégg naa Fodil Megaria défenseur kii bi mhm. ak Nourdine Kourissi dem na ko xalaat tu veux qu'on si vous marquez on nous si vous nous gagnez on nous donc xam nga mhm. imaginez donc les gens ne jouaient pas pour de l'argent parce qu'on n'avait pas véhiculé des idées mercantiles mmh. dans l'esprit des, des, des, des, Sénégalais, des internationaux. Mhm. C'était, on avait véhiculé des, idées, des, idées de citoyenneté, parce qu'ils jouaient pour leur patrie, ils jouaient pour leur peuple. Donc vous imaginez, donc loolu mu nekk loo xam ni demi-finale boobu ndeysaan Sénégal après dem euh, quatrième place Zambie dóor ñu ne donc le Sénégal qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations ñu malheureusement on a été éliminé en quart de finale parce que tout simplement les gens dañuy wax woy équipe bi dafa màgget non c'est pas ça. Hmm. Hmm. non avait rencontré des équipes qui étaient meilleures que nous parce que ça aussi il faudrait qu'on puisse relativiser parce que ces équipes étaient meilleures que nous parce que cette équipe du Cameroun là revenait d'une coupe du monde et les gens l'avaient oublié. Hmm. ça c'est un élément très important la preuve l'équipe de, de, qui avait joué en finale contre le Ghana de Abedi Pelé. Mais cette équipe de la Côte d'Ivoire là, qui avait joué, avait organisé en elle avait perdu chez elle au premier tour, en Et le président Félix oufé avait dit que vous êtes des éléphantaux, mais demain vous serez des éléphants, des grands éléphants. on est resté des années sans peut-être euh, football bi dox ni mu waree. waaw xam nga parce que à l'époque, mm. en mettant en place des structures de, de structures de financement, hmm. en mettant en place des structures d'organisation. On avait, on avait plus de sociétés, on avait beaucoup de sociétés. Mais les sociétés n'avaient pas cette vision prospective-là qui leur permettait de comprendre que le sport était un meilleur support de communication. Hmm. Ils ne l'avaient pas compris parce que boobu ay dirigeants la ñu amoon ñu mel ne ay Lamine Diack ay El Hadji Malick Sy ay Guy Tambert ay ay ay dem si yàlla Moussa Yoro Camara ay Yoro Sow ay Montréal yi ñoo doon jël seen xaalis di def ci seen poche mhm. di yi mel noonu la ñu amoon ay ñoom Babacar Ndiir ay Babacar Diop bi nekkoon Saint-Louis ay ñoom ñoom dañu amoon ay dirigeants ay dirigeants yoo xam ne c'était des c'était des mécénats c'était des mécènes ñoom dañ da ngay doon sax dañ daan jóge seen kër ñu laaj leen dépense bañ ko joxee ñëw jox ko ay jour wala jox ko ay club par exemple soo xoolee ay ñoom Badou Gueye fan la woon euh, Saint-Louis la jóge woon ñëw Jaraaf Euh, Saint-Louis la jógee astafurla la jógee Diourbel ñëw ñëw ñëw nekk fa capitaine gagné fa coupe du Sénégal maa ngi coupe du Sénégal ñoom bi ñuy gagné la police 2-0 je en 77 defe naa loolu c'est 77 xaw ma 78 mhm. en 60 en 75 waaw 75 parce que parce que Baye Touré moo dugal premier bi Ndofène Fall moo deuxième bi je me ñu solo seen maillot raya yooyu. Mhm. ñoom ñu solo ay boobu Copa mi ngi doog a génn Gonaas amoon na amoon na amoon na njëriñ ci réew te alors que boobu. Mhm. stade yi day fees del del del del del del mais amuñu woon cette vision là. d'accord pour pouvoir pérenniser ça. ñu ñëw ñu dem 92 bi ñu demee 92 ñu éliminé au premier tour bi ñu éliminé premier tour ñu dem ñu noonu dañuy éliminé quart de finale ñu toog. Mhm. bi ñu toogee ñu ñëw ñuy préparer les échéances de 94 ñu ñëw Algérie invité Algérie invité ñu en 1994 Algérie. d' accord bi ñu Algérie éliminé en 1994 non ñoo bokkoon poule. d' accord dañu match ni nag ñoom fii ñu jëm ñu gagné bi ñu gagné 1-0 ngi am ndekete benn dirigeant boo xam ne ndeysaan dem si yàlla Mawaddu Wade yàlla na ko xa yàlla xare àjjana. yokk leeram ci biir bàmmeel. amiin Mawaddu Wade soufflé sénégalais yi ne leen en réserve parce que Fodil Magaria dafa am ñaari jaune waru woon jouer benn match. Hmm. sénégalais yi def ko kaf mu insisté ci sénégalais yi def réclamation FIFA. au niveau de la CAF la confédération africaine disqualifiée mhm. équipe bi nga xam ne moom mooy Algérie Sénégal dem parce que année boobu Sénégal moo dem ak euh, Cheikh Seck c' était sa quatrième coupe d' Afrique des nations mhm. à l' le premier jour qui avait fait quatre coupes d' Afrique des nations tey Henri Camara moo ko def donc gàcce ngaalaam waa Jaraaf Henri Camara moo def cinq cinq coupes des nations kenn kenn kenn atteindre gul son mhm. cinq coupes d' Afrique des boobu y avait les Cheikh Seck les Daraja les Atanas Tendek les Amara Traoré les Mamadou Diallo comprendre nga ñu dem mais malheureusement on a été éliminé aussi en quart de finale par la Zambie sur un but tellement anodin. Hmm. ñu ñëwaat continué waat en 94 ñu toog aussi 96 demuñu 98 hmm. demuñu Sénégal dans le de la coopération dafa amoon coopération ak les Allemands. Hmm. parce que à l'époque les entraîneurs étaient formés soit à Leipzig soit à Mayence soit aussi à à fële nu Euh, comment dirais-je beneen de dëkk bi euh, waaw j'ai oublié le pays quoi. je sais parce que j'ai fait j'ai xam nga j'ai fait un séjour. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga donc Sénégal ñuy formé foofu après dans le cadre de la coopération ñu signé accord xam nga per période boobu. fekk na il y a eu la chute du mur de Berlin donc il y avait plus ces deux Allemagnes ces deux Allemagnes parce que à l'époque il y avait la RDA et la RFA léegi bi ñu ñëwee ndeysaan ñu signé euh, pratiquement benn partenariat benn convention benn euh, collaboration de coopération avec euh, euh, l'Allemagne ñu envoyé fi Peter Schnittger ñu envoyé fi comme un conseiller technique sportif de l'ambassade d'Allemagne Peter Peter Schnittger nekk entraîneur bu xarañ fekk jaaroon na Togo jaaroon na yenn dëkk yi ay Nigéria jaaroon ay Cameroun xamoon na parce que ñun amoon nañu autoficiel soo xoolee autoficiel nekkoon na ay entraîneur ñoom Sega Sakho ay ñoom Dofeen Fall ay ñoom Bay Fall mhm. ay ñoom Yaamagor Seck ay ñoom Kulbaleeg yooyu mhm. léegi après ñu am aussi ki nga xam ni moom mooy euh, euh, Peter Schnittger mhm. Peter Schnittger c' était le deuxième allemand bi nga fi bi fi ñëw dans le cadre de la coopération Peter defar fi benn équipe parce que Peter moo defar équipe bu 2002 bi gars yi ñu fàtte mbir loolu parce que 2002 Peter euh, puisque sélectionné Aliou Cissé Aliou parce que Aliou Cissé ne voulait pas venir parce que il voulait pas perdre sa place au Paris Saint-Germain boobu mi ngi Saint-Germain. loolu du ma ko match boobu amical la woon fii. Hmm. c' amical je pense contre contre le Burkina Faso mu nekk contre la Côte d'Ivoire euh, au stade Demba Diop je me rappelle très bien boobu Aliou mi ngi toog mi équipe bu xarañ ñoom Henri Camara ñoom Pape Bouba Diop ñoom Omar Traoré. ah ñoom ah, gardien bi nu mu produit doomu Omar Dia ñoom Omar Diallo mhm. ah ñoom Tafsir Saliou Ngom ñoom Assane dem si yàlla Assane Ndiaye ñu dem je fa am ci la Fadiga ñëwee pour la première fois en équipe nationale Fadiga Fadiga c'est le premier but national qui est venu en équipe nationale. et les gens dañ koy fàtte. Mhm. c'est le premier c'est lui qui a annoncé la couleur. ça il faut vraiment saluer au moins euh, cette qui cette, cette idée nationalisme de de Kalidou Fadiga. Mhm. boobu il avait la nationalité belge mais ça ne lui a empêché de venir au Sénégal jouer boobu Sénégal melul ni sax rien n'était kii mhm. ñu ñëw ñu def ngan di match ñu demi-finale contre Nigéria ñu mën a Nigéria après on a ñu mu a Nigéria Sénégal mën a Nigéria 1-0 mhm. mais par la suite xam nga bon le euh, les les nos nos la nos amis nigérians mhm. euh, matière de sportivité et de fair play foo leen doon noté ah demi-finale bi nekk une demi-finale boo xam ne pratiquement kenn xamul match nawetaan la kenn xamul ndax match koñ la public bi wàcc ci suuf il y a eu des menaces il y a eu des intimidations par la suite le Sénégal a perdu sur le score de deux buts un xam nga le Nigéria au moins se qualifie pour sa finale loolu du ma ko fàtte mukk quoi bu nekk euh, benn aussi euh, pratiquement benn déception pas une déception mais un goût amer parce que les conditions dans lesquelles l'équipe a a perdu vraiment la CAF devait sévir pour sanctionner cette équipe nigérienne-là et même ces dirigeants nigériens qui n'avaient pas été vraiment euh, des exemples de, de, de, de, sportivité et de fair play. Mhm. yàlla def aussi euh, Peter Siré Dieng dem ñu jëli ki nga xam ni moom mooy euh, Bruno Metsu dama lay defal benn anecdote hmm. parce que boobu El Hadj Malick Sy Souris man sama paa musa doon gis bi Bruno Metsu di ñëw hmm. man maa jëli ak Mama Sow aéroport man bii ñu yóbbu mu loger casino du port boobu tonton Souris mi ngi c'était le président du conseil d'administration du port autonome de Dakar hmm. ñu yeewu après mu woo ma ne ma il faut ngeen jëli ko ñun ñoo jëliwaat euh, man ak Mama Sow bii Mama Sow moo nekkoon directeur technique ñoo jëliwaat Bruno Merci fekk boobu astafurlah feela fala nootel dama juum comprends nga après dañ ko indi casino du port mu nekki foofu ñu toog waxtaan man ak moom ak mami Mama Sow ñëbbu ko bureau parce que aussi le président du conseil d' administration du port loolu comme démb ci man nii nii mhm. aéroport ñoo ko jëli fekk boobu jour boobu asuba aussi mi parce que journaliste la woon comprendre man ak Mama Sow loolu du ma ko fàtte mu comme démb mhm. donc football bi peut-être que am naa ci jaar-jaar mhm. am naa ci loo xam ne mun naa ko ci bind tonton Souris vision bi ma amoon maa ngi fàttaliku gis nga équipe bu 2002 bi ñu koy créé xam nga fu ñu leen yóbbu ah. tabaski dafa jot yóbbu leen Gàmbi tonton Sour El Hadj Malick Sour dafa leen ñoom ñëpp ay bagage yu weex bu ma ko fàtte ay Salif Diaw ay xale yëpp mhm. fekk boobu amoon na benn centre bu ñuy wax Aldo Gentina fa la Amdi Moustapha Faye jóge woon fa la mhm. fa la Boy Sissoko jóge woon fa la fa la Moussa Ndiaye jóge woon Tony Mario Silva Souleymane Camara mhm. mais ñu ñoo ñëpp ñëw équipe nationale ay Salif Diaw bii ñoom ñëpp parce que xam nga tey dañu wax ne ay génération foot mais centre Aldo Gentina moo fi njëkk donc ko fay loolu waaw parce que précurseur la mu doon former xale yi yàlla def mu signé fekk xale yi de dem dem Monaco bu fi jógee dem Monaco ñëw nekk ay internationaux ñu nekk fi ay internationaux ñuy joué ba Sénégal qualifié Coupe d'Afrique des Nations. Mmh. Sénégal aussi qualifié euh, Coupe du Monde Coupe du Monde match contre Maroc bi. Mmh. contre Maroc bi jour boobu la veille match le match c'était samedi. Mhm. match qualification coupe du bu ñuy gagné fii 1-0 bii la El bi. Mhm. boobu jour boobu bu ma la ci waxee parce que am na loo xam bu ma la waxee li ci mhm. moo tax gis nga lu sotti rek am borom. des fois dañuy fàtte am na ñoo xam ni. def nañ ci lu bare bare bare bare pour football bi taxaw. loolu lan la ci lan la ci defoon li ngay wax ni qualification bi. moom moo doon président de fédération xam nga am na yoo xam ni dinañ la ko dénk yow nga nekk xale. dëgg la ko dénkee parce que dañ lay wóolu. wóolu la xam ni am na ay secret yoo xam ni doo ko mën a wax ci. en public. mais man li ci xam ak li ma ci def ak moom li mu ci def. Mhm. ci gu ci diggante euh, ajjuma jooju ci ci ajjuma jooju diggante xadaratul juma ak gée. Mhm. loolu mun naa ko témoigner. ci mbirum xar fa xuufa la wala mbirum ñaan wala mbirum dépense. mbirum ñaan ñaan ci baatin. d'accord d'accord. ñaan ci baatin la la woon. d'accord parce que moom lépp ñaanam lép ci baatin la woon. loolu ci ay xar fa xuufa. d'accord lépp ci baatin. Mhm. man gis nga. dinaa la jox benn firnde rek. El Hadj Malick Sy dafa joxoon benn blouson. waaw blouson Orea blouson bi numéro 33 la. ok ba léegi mi ngi sama kër xoolal ba léegi. Mhm. blouson bi saa yu équipe nationale du Niger koy sol blouson 33. ah oui numéro 33 Orea ba léegi mi ngi ci. lan mooy secret lan mooy secret bi <laughs> ah? lan mooy secret blouson xam nga ku jàng alxuraan tam. waaw xam nga chiffre 6. chiffre 7 xam nga xam am na lu muy. am na lu muy tekki waaw xam nga soo xoolee Al Imran. Hmm. nga xam lu tekk ci ci alxuraan quoi. Hmm. xam nga dañ lay wax yàlla programme bu yàgg yàgg yàgg yàgg. dëgg la fi nekk di sonn rek. dëgg la donc xam nga ñu joué match bi. Mm. bi ñu joué match bi ñu gagné 1-0. Mm-hmm. ñu war a dem euh, Namibie defe naa Namibie la war a dem Géji mooy bi président Abdoulaye Wade tegee avion bi. Mm. xam nga tax dem ma match boobu mm. ah? parce que boobu El Hadj Malick Sow dafa fi dénk liggéey. pour te dire que am na ay dirigeants yoo xam ne. Mm-hmm. ñoom daawuñu ko sax. seq ak seen ay doomu lay dañuy seq ak seen ña amoon ay homme de confiance yoo xam ni. Mhm. ñoom lañ koy seexal parce que man suñu dama mës a nekk jarbaatam. Mhm. mës a nekk xaritam. Mhm. donc mu dénk ma fi yoo xam ne loolu moo tax ma donc ñu dem foofu gagné fa cinq buts à un qualifié la coupe du monde football pour la première fois daal l'histoire ñu yegg si Ablaye Wade sargal leen teeru leen réew yëp yëpp teeru leen parce que bu ñu doon imaginer que équipe sénégalaise boobu dina qualifié euh, ñu dem coupe d'Afrique. coupe d' afrique bi ñu dem coupe d' bu boo xam ni bu bu bu relevé. mooy 2002 amuñu defet ay champion rek la ñu ay Nigéria. Mm-hmm. ay Tunisie ay Zambie yooyu rek la ñu gagné. Mm. te ñooñu Sénégal joxuñu ko woon sax chance pour mu génn par ñu dem ñu génn ñu génn su premier sunu poule am trois matchs trois victoire en premier jóge fa sunu deuxième suñu quart de ñu dem fa gagné quart de finale. Mm-hmm. jógee quart de finale dañu demi finale Nigéria match bu méttee métti métti boobu Nigéria ay xoolal ay Rashidi ay Olisey xam nga ay Amokasi ngan di euh, Nigéria boo xam ne pratiquement ils jouaient tous en Europe dans les championnats anglais et dans les championnats français ou belge gañe leen bu gañe bu leen jaaxal mhm. ñu ñëw war a daje final Cameroun gis nga en dix minutes on pouvait résumer le match mais xam nga mooy li ma la wax léegi rek yàlla programme la depuis démb. Mhm. xëy na du jël final boobu waruñu woon gañ. Mhm. donc mais lan moo nekkoon particularité équipe 2002 boobu. particularité équipe bi lenn la woon. Mhm. boobu dañoo amoon ay dirigeants yu xam sport. ku mel ni El Hadj Malick Sy dafa xamoon parce que il était dans l'environnement de pratiquement du football parce que il aussi Carlo Molinari bi nga xam ne moo doon xaritam moo doon président Monaco donc dafa doon xam aujourd'hui quels aujourd'hui les petits détails les moindres détails mhm. dans la gestion du sport de haut niveau du football de haut niveau ba tax na ci lañu commencé ñun am ay sponsor gis nga gis nga mayo Orea ñu ñu xam kan moo ñu ko joxoon hmm. Mori Paye c'était un ancien défenseur du Jaraaf Mori Paye man gis nga Fatou mhm. dem naa sax yóbbu ay maillot ñu floqué ko maillot yu weex yi ñoo doon ñu amul weex yi xam kan mooñ ko joxoon maillot yu weex yooyu. Ah. dem si yàlla ndeysaan euh, Sidi kii bi nekkoon Louga te mu nekkoon Solu Sidi Niang. maillot 2002 moo ko jox moo ko joxoon ay maillot yu weex ñoo doon sol. moo ko joxe woon après. ñoo war a wut ay baay weex amuñu baay weex keroog waa Jaraaf ñoo abal équipe nationale baay weex. kon dañ doon taxalee 2002. non pas 2002 loolu benn baa la. ah d'accord. waaw mais gis nga 2002. Uh-huh. Mori Faye moo jox ay urea. E ok Réal ñu fumale ko ba mu ba pratiquement joué ko a après ci xam xoolee Sénégal son premier sponsor. bu mu hmm. signé ak équipe manche c' était Coq Sportif. Hmm. après Coq Sportif ci la ñu am Puma après ñu ko ñu am Puma après Yosini ak Puma am am Romaay après Puma ñëwaat donc dañu woon rek processus bi yëpp parce que nit aussi dafa mel ne sa kër rek soo koy tabax. Hmm. boo koy tabax dafa am looy defar. waaw looy def fondation mi ngay def. boo defee fondation ba commencé di nga couler mhm. soo couler ba émo ba kii bi taxaw na nga doog a comprendre nga mhm. raax tey raax bee jot mhm. raax bi su paree kër gi pare na nit ñi dugg ci donc ñu dem coupe d'Afrique dem finale dem coupe du monde def ko fu loo xam ne mosuñu ko def boobu à l'époque j'étais au soleil man j'étais journaliste au soleil ñu dem gan li coupe du monde coupe du monde boo xam dem ba quart de finale. quart de finale waaw wala coupe du monde bi avec avec la plus grande attaque du monde. en mm-hmm. Thierry Henry Trezeguet Zidane ak ak keneen ki nu mu ak Dugarry. Mm-hmm. kii kii kii avançant championnat de France kii meilleur buteur championnat de France kii meilleur buteur euh, championnat anglais. Mm-hmm. muy Henry kii meilleur buteur championnat Italie Trezeguet mi ngi nekkoon Juventus. ñu am un Zinedine Zidane boo xam de Juventus pour war a dem fële Real de Madrid. xam nga donc ñu dem. gagné euh, ki nga xam ne moom mooy euh, France match nul ak Uruguay après génn premier tour ñu dem huitième de finale ñu nekk suñu match ak suñu suñu ak Suède boobu Ibrahima Vilsi bii. Mhm. Ibrahima Vilsi bii mi am ay ñoom Toftil. Mhm. ay ñoom ay ñoom ay ñoom Tolmi. Mhm. ay ñoom Anderson ay Anderson nga xam ne xoolal bopp bi comme lañ set lu mu wax mu dugg <laughs> ñu daje ñoom gagné leen. gagné bu neex a neex a neex a neex gagné le but de Ali Camara. Mhm. te gis nga jour boobu ndeysaan. maa ngi fàttaliku waaw le but en maa ngi fàttaliku le le ndeysaan gis nga xam nga kan laay fàttaliku. Mm. président mbay Ndoye yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin jour boobu match boobu mënoon nañu ne match bu xaabala Mm. parce que dañuy jouer mi-temps foofu laa doon ñëw de. <laughs> waaw dañuy jouer mi-temps ñu ne ñu. Ah. ñu dem deuxième mi-temps ñu ne il faut ngeen dugal ku tudd ku sant Camara gars yi xamuñu kan la ñuy dugal. ah oui ñu dugal ñu dugal ñu dugal Souleymane Camara dugal Henri Camara. ok waaw parce que amoon ngeen ñaari Camara. waaw te xoolal ñoom ñoo dugal bii. d'accord donc dañ lay won ne xam nga équipe nationale bi. ay mhm. baati na ko téye woon. d'accord tey ñu ciy liggéey ñu dem 2002 jóge 2002 dem 2004. Mhm. fekk l'équipe était vieillissante après ñu am ay ñoom euh, doomu Mor Sakho bi Sakho. Hmm. waroon Nges Diouf ay ñoom Lamine Diatta. Hmm. xam nga c'était presque ci lañ doon jeexal ay ñoom euh, Lamine Diatta ñoom euh, a Cissé ci lañ doon jeexal Coupe d'Afrique. Hmm. ñooñu ñëpp parce que ils étaient de la génération 2002 ak ñoom Pape Malick Diop. mais 2002 aussi am ay une nouvelle génération ay ñoom ay ñoom Ousmane parce que Ousmane Ndoye waroon na sax dem. en en deux mille mais malheureusement boobu aussi euh, euh, Bruno Messi bëggoon jël risque wàññi kenn parce que amoon na équipe boo xam ni. Mm. Euh, ñu ñu bëri dañu doon wax nañu wàññi nañu wàññi Amara Traoré fekk Amara réguler pratiquement les vestiaires. Mm-hmm. donc vous imaginez. donc ak ñu bëri ay ñoom am di fay c'était leur dernière coupe d'Afrique des Nations. Mm-hmm. ñu jógee deux mille deux mille Nigéria éliminé Tunisie moo ñu ñu dem. ci le brouillard de Radès. Mm. dañuy ñëw dugg ci stade bi stade bi am brouillard. ñu ah joué huit minutes gars yi marqué ñu bii stade bi match bi yëpp nekk brouillard kenn kenn gisul. kenn gisatul match bi parce que match boobu bu doon condition yi dañ koy arrêté. Mhm. parce que doo gis bal bi gis jour. ñu jël bi bii bu gaaw. Mhm. kenn xamul bii wu xërëm la kenn xamul lan la <laughs> les journalistes européens avaient fait allusion pour dire le brouillard de Radès parce que ñoom ils ne comprenaient pas comment on avait pu jouer un match de comme ça avec waaw de part et d'autre ñu dans ces conditions là Mm-hmm. ñu koy seet dans ces conditions mm-hmm. sànq yaa ngi wax mbirum bu xaaba effectivement dañuy wax même <coughs> même match contre France bi am na ba tey ñoo xam ni dañu naan mbirum xar fa xuufa moom moo fa feeñ mais euh, d'autre part aussi dañuy wax ne équipe bi su tardé ay mbirum xar fa xuufa mi ngi si parce que gars yi dañuy xeexante à haut niveau donc yow est-ce que fekkee nga foo xam ni effectivement gars yi investiru nañu ci mbirum euh, ñaan yooyu mbirum xar fa xuufa yi sànq par exemple l'exemple de Souris wax nga ni ci àjjuma boobu ñaan na ci ñaan yu doy waar ku nekk xam na aussi. xam nga ah, xam euh, nga bisum nangu ñaan la. mais ci beneen wàll waaw. lan nga xam nga xam nga président El Hadj Malick Souri moom taalibe Cheikh la. moom da daan wàccee kaamil. Hmm. ñun dañ daan woo 33 trent 33 pas ñuy wàccee kaamil pour ñaan xam nga 33 moo tax ma ne nga chiffre 33 boobu. waaw 33 pas ñuy wàccee kaamil. ku hmm. nekk di wàccee kaamil. loolu xam nga loolu dafa am loolu da doon aar bi loolu moo doon loolu moo doon aar te loolu def moom si si si euh, wàllu boppam. ci wàllu boppam moom parce que moom ci wàllu boppam xam nga président Souri moom foo gis Talibe Cheikh xam nga Talibe mhm. Cheikh ñoom ñoom. Mhm. ñoom salaatul fa salaatul ala nabi salaatul mhm. donc xam nga loolu ba ci baatin la woon parce que loolu aussi day aar dafa mel ne nag yow. saa yooyu chaque chaque ñetti weer nga wàccee sa kër kaamil da koy aar. dañ lay wax sax ñetti xul wax laaw boo ko wàccee rek boo ko taree wàcc nga kaamil mhm. da ngay aar ba tax dañuy wax ne des fois sax dañuy wax borom xam-xam yi dañu daan wax ne sa waajur su génnee àdduna mhm. chaque guddi day jóg ñëw ñëw xool ndax yéen a koy ñaanal mhm. chaque guddi lu mu gàtt gàtt gàtt war nga ko taril au moins ñetti xul woo alawaaw comme ça parce que dañ dégg naa dañu daan toog ba fajar ñu delluwaat seen bàmmeel dégg naa boo leen ñaanalee dañuy kontaan bu ñuy dem dañuy kontaan mais bu fekkee ne amuñu ñaan dañuy duñu seen xol du neex. Hmm. loolu moo tax ñuy wax ci chaque fois nit ki waajuram war na ko di jàngal alxuraan. Hmm. kon bés ba fu génnee àdduna mu koy ñaanal yàlla di ko fàttali ñun sunu ay waajur génn ñu àdduna suba. Hmm. mais chaque guddi lu mu gàtt gàtt nañ leen defal ñetti lixlaas. chaque guddi lu mu gàtt gàtt. balaa ñoo tëdd donc loolu dafa am solo parce que borom xam-xam yi ñoo ko wax. waaw te loolu imaam Malik aussi daan ko dégg digale. donc ba tax na équipe nationale. équipe bi équipe bu baatin la woon temps yooyu hmm. te gis nga baatin boobu moo topp équipe bi ba léegi te ñu bari xam dañuy toog di wax baatin boobu hmm. xam lañ doon wax naan équipe bi du gagné du mës a gagné gis nga fi temps ay sëriñ di wax naan du mës a gagné parce que ñu bëri am wax nañu ne am na yu ñu euh, yooyu. te waaye gis nga gis nga gis nga sëriñ yooyu ay dóorkat lañu rek. Hmm. xam nga ñooñu ñooñu ay mercenaires lañu ay bopp dinaar lañu dañu wut marché mais gëmoo ne tamit ñi ci kaw des fois ñu xeexante ni muy jaralee ku mel ni euh, euh, El Hadj ci Sy Souris moo investir mu jaral keneen noonu ba mu jóg pour mm-hmm. yàq yaakaaroon ne mm-hmm. loolu mën naa am. man faatu mm. dafa am lu gëm. Mm. xam nga soo demee ci euh, surat al Imran dañ lay wax ne. Mm-hmm. da ngay yàq dem ba yaakaar ne affaire yi yàqu na. nga découragé. Mm. mu baax fekk yàllaa ko programme woon noonu. xam nga loolu soo gëmee. Hmm. ci àdduna doo sonn. te hmm. yàlla moo ne woon man boo may jël téléphone di ma jël may ma nekk ci àllu Kaffrine. waaw kooku suñu borom ma ko waxoon. dëgg la moo ko programmé. Hmm. parce que normalement émission war ne ko def ma ak yow ñu toog en direct toog. mais suñu borom moo ko bëggee noonu programmé ko noonu. donc ñun aussi il faut ñuy jalloo suñu xel ci borom bi. delloo suñu xel ci borom bi mooy chaque fois lépp lu borom bi am parce borom bi. suñu mais bu la tegee nag ngay seetlu jaam bi ndax kii nangu na ci wala nangu na ko. Mhm. parce que man Fadou xam nga man. Mhm. man gaw ma yàlla. mais dama ko wóolu. Mhm. man gaw ma yàlla mais dama wóolu yàlla. xam nga kon donc loolu moo raw gëm. waaw wóolu ko voilà. man lépp lu am rek sunu borom. waaw loolu daf ñuy indi ci Aliou Cissé lu ne dégg na ko. mais euh, mu tëni euh, def preuve de persévérance euh, ba yegg si tey fi mu yegg si lan nga jàpp ne moo gunge Aliou Cissé ak toute cette génération la bi nekk autour de lui ba tey ñu yegg si à ce résultat muy jël Coupe d'Afrique des Nations. xam nga ali Cissé. lu ko gën a may doole. Mhm. pas-pas ak ngëm-ngëm. Mhm. man du ma la ko réeree mbir ah. man xam nga gars yi ñuy wax wéy baal naa lan la ñu baalu àq Aliou Cissé mhm. man du ma ko baalu àq. mais sunu alal la yore ku yor sunu alal la. gis nga nit. moom sax nangu na loolu su fekkee ne bëgguloo ñu critiquer la. Mhm. nga bàyyi alalu réew mi. bu ko yore le président Macky dañ ko fal. Aliou Sall mhm. ko nommé mais ko fal te pourtant ñu ngi koy ŋàññi di ko critiquer. bu mhm. ñu critiquer la xam nga da ngay toog sa kër. mais li ma mën a wax mooy am na pas am na patience. am na aussi ngëm-ngëm. mais aussi am na loo xam ni moom rek moo ko fi def ah trois coupes d'Afrique. amul kenn ko ko fi def. amul kenn ko fi def sept ans moom yu mu fi def. moom rek ko fi am ah luñ ko fay mosuñu ko fay kenn mosuñu ko fay kenn. d'accord donc yooyu yëpp aussi c'est des c'est des. c'est na si moom. Ah, toutes les conditions sont réunies pour Aliou Cissé. ok équipe nationale daaw leen gis ñu jël avion spécial amul fenn avion boo xam ne ñu fay trois cent millions avion boo xam ne ay cinquante personnes ci nekk avion boo def deux cent trois cent personnes ñu def hmm. la hôtel yoo xam ne les hôtels lépp tey Radisson Diamniadio boo gën a cher ci hôtel Sénégal La nuitée, c'est combien La nuitée au bas mont ça fait au moins presque deux cent vingt cinq mille. Hmm. donc vous imaginez. amatuñu problème prime tamit euh, waaw. amatoo yenn problème yi daal am si tanière yi amatul waaw. amatoo benn amatoo benn amatul c'est-à-dire que yow. amatul stress daal ci biir tanière bi ba pare aussi nga am ay dirigeants yu mot dirigeant aussi nañu wax dëgg. ok parce que quoi qu'on puisse dire aussi les fédéraux ay dirigeants yu mot dirigeant lañu Augustin ku mot njiit la. ok parce que lu nekk dégg na ko moom tamit. mais terewul mu muñ yore carapaasam di liggéey tey loolu moo porté ses fruits ñu am aussi un état boo xam ni un état qui à l'écoute et qui accompagne mm. en mettant à la à la disposition de très très gros moyens jamais dans l'histoire du Sénégal hmm. l'État n'a investi autant dans le football amul yow balaa ngaa dem ñu mettre dans dans un avion boo xam ne yow rek hmm. boo ñëwee ñu dëggal hôtel boo xam ne buñ la convoqué am nga prime de sélection un million Hmm. match amical tu as soo amee match nul am un million hmm. ah soo gagné tu million bon c'est vrai que xale yi xaalis du indiwu leen fi hmm. mais dama lay war rek condition yi ñu nekkee motivé nañu leen waaw jox leen ay passeport diplomatique ñun ay fonctionnaires de l'état lañu amuñu ko amuñu ko y a des internationaux yoo xam ki été champion d'Afrique amuñu ko mais ñoom bi ñuy dem fële Afrique du Sud ay passeport diplomatique lañ leen jox kan moom privilège yooyu ah mais nag tey aussi bu ñu gañewulee ñu laaj leen ko ah. ok il faut dire ko gañe leen gàcce ngaalaama Lions yi mais bu ñu gañewuloon ñu laaj leen ko. d'accord Aliou Cissé bu gañewuloon ñu laaj ko ko. Hmm. parce que conditions yi toutes les conditions sont réunies. Fatou mettez-moi dans les dans les dans dans les conditions je vous donne des résultats. Hmm. là où je travaille c'est comme ça. Hmm. et puis dirigeants yi aussi quoi qu'on puisse dire aussi euh, mais euh, dañuy liggéey parce que soo xoolee tey football Sénégal Fatou les catégories. toutes les catégories sont représentées toutes les catégories catégories yëpp ah ak football féminin ñu ngi dans les compétitions internationales mhm. te loolu kenn mësu ko imaginer kenn mësu ko xalaat dem nañ fi demi-finale coupe d'Af euh, coupe du monde U17 dem nañ fi qualifié nañ fi encore une deuxième fois à la coupe du monde en 2018 te incha allah Qatar su neexee yàlla en 2022 au mois de novembre bëgg nañu yàlla yóbbu ñu foofu hmm. waaw football spécifique ba pare football ba soccer xoolal gagné Brésil gagné Portugal les équipes les plus titrées loolu mooy loolu sax football festif sax gasi la parce que mënoo gagné Belgique mënoo gagné Brésil gagné gagné Portugal les équipes les plus titrées mënoo mënoo bokk dans le carré loolu sax gasi la gasi gasi énorme moo moi je demande à ce que le football spécifique là ñu dem au moins wuti ak des sélectionneurs yoo xam dañ leen di former au plus haut niveau. Okay. parce que on a de su fekkee ni par exemple. Euh, entraîneur fii rek lay yem du recycler wu aussi ñun bon volonté la mais attends loolu football dafa dépassé loolu. Mhm. léegi c'est la formation. da ngeen war a dem ñu former leen. Mhm. waaw bu ñaan leen aussi ngeen jaar ngeen jaar ngeen leen liggéey gën a renforcer seen ay capacité ñun bu fekkoon ni euh, euh, Fatou. Mhm. li ñu bu fekkoon ni ñun li ñu jàngoon bu ñu génnee université jëfandikoo ba léegi kon mais raw nañu bu yàgg. mais boo toogee ñaari at nga demaat capacité wu. jéemoon sàkki xam-xam. xoolaat ne am na ay module wala am na mm. bi. Mm. tey li mu gagné nii processus bu yàgg la. bu yàgg yàgg yàgg la. Mm. mais nag tey la ko yàlla doo ko sotti. mu mel na di nga gis booy sànq li ma la wax di am sa chantier. waaw te tabax sa kër pendant dix ans parewul nga dugg ba sa dixième année wala nga ñëw sa benn doom. Mm-hmm. yàlla ubbil ko wërsëg mu yàggale kër gi. voilà. équipe nationale noonu rek kon daal mën nañu jàpp mbay Jacques ni ma ubbee woon ci tënk que ni euh, Coupe d'Afrique bi ñu jël en deux mille vingt deux liggéey bi mi ngi tàmbali bu yàgg yàgg yàgg. liggéey bi tàmbali bu yàgg mag ñi fi ñëpp mën nañu jàpp ne seen ndam la. xoolal xam nga ndax ma ne bi tàmbali ko bu yàgg. Hmm. est-ce que Fatou daal xam benn affaire. Hmm. avant l'indépendance on n'avait pas de fédération. xam nga amoon. Hmm. on avait ce qu'on appelle la fédération des sports. Hmm. tous les sports étaient réunis le football était une section. le basket section la woon le handball. Hmm. à l'époque soo bëggee organiser compétition. waaw da ngay dem ci gouverneur général Boissy. Hmm. Boisson bu jox la autorisation. mais dirigeants sénégalais ñoo ko dindi. ñoo yeewu ne par force dañuy créer fédération football. ok gars yi menacé leen les colons le leen dañuy dem par force après colons yi reculé. après ñu koy ay handball ay fukki ya ah, noonu la demee loolu moo lay woon ni Sénégal seen dirigeants yi. Mm-hmm. yàgg nañu xarañ yàgg nañu taxaw mm-hmm. ci loo xam ni c'est pour développer seen ay réew mm-hmm. soo xoolee la y a eu la fédération du Mali avant il y a eu la fédération du Soudan effectivement donc loolu yëpp à l'époque su la waxee dara par exemple xam nga dama la jox benn firnde bu weer bu leer est-ce que xam nga l'Olympique de Marseille xam nga c'est la loi de 1901 moom la Bernard Tapie jël pour créer pour créer ce qu'on appelle le football professionnel avec Marseille. Est-ce que xam nga la loi de 1901 là. Hmm. la charte de l'AF de 1940. Mm. et cette charte là a été promulguée en 1941 au Sénégal. Mm. cette cette cette cette charte là la charte de l'AF. Okay. donc tu tu t'imagines. et en a été promulguée au Togo parce que ñoom. dañu mës a gëm ni tubaab yi. Hmm. waruñu leen toog rek di leen noot di leen wax woy ni ngeen def du ngeen am fédération. Hmm. donc gis nga processus fu mu jógee. Euh, gis nga Maguette Diack président euh, magu président Lamine Diack. Hmm. su la waxee benn affaire moom moo jëkk a nekk le président de la euh, fédération de de la de la l'AOF. dans le football président AOF. est-ce que su ma la waxee ko gëm. en 1961 avant qu'on crée la fédération sénégalaise de football. Mm -hmm. il avait laissé dans les caisses six millions six millions à l'époque imaginez-vous 1961 nga six millions dans les caisses. waaw million ca boobu jamono. ah itam million boobu jamono. mooy mooy mooy six millions yee mooy mooy vingt milliards tey. Mhm. donc imaginez bàyyi six millions dans les caisses bi muy dem. Mhm. tey Sénégal. Euh, am nañu benn autonomie boo xam ne parce que qualifié ñu ay coupe du monde coupe d' Afrique bi rek ça va nous coûter deux milliards à la mm. fédération. Mm. donc léegi lu ci des mooy ñu xool nan la ñuy mutualiser mm. les retombées. Mm-hmm. parce que retombées yi war na jariñ club yi parce que club yi tax. waaw ah mais club yi ñooy fal. Mm-hmm. c'est pas les professionnels c'est pas les internationaux ñooy fal club yi mm-hmm. ñooy fal. donc war nañu xool nu ñuy mutualiser loolu defar ko defar bu bu bu baax boo xam ni. football football amateur dina ci dund. Mm-hmm. en dehors du football professionnel football scolaire dina ci dund. Mm-hmm. football euh, football même associatif. dafa mm-hmm. teel football militaire sax war na ci mën a dund. ak militaire ñu boo ak paramilitaire ñu boole leen ci parce que ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci dans le sport sénégalais ils sont dans le football. aujourd'hui il y a l'ASFA il y a la douane il y a la police ils sont là et ils en font partie. donc loolu aussi dafa am solo. jërëjëf Mbaye Jacques Diop am na solo vraiment euh, comprendre nañu aussi lu bari ci processus bi et que leer na tey ni football bi yoon la woon boo xam ne euh, dafa gudd lool ñu waroon ci jaar ba yegg si tey fi nga xam ne euh, moom mooy cëppaandaw li tàmbali nag di gis résultat yi mu daje aussi ak ni nga ko waxee état bi tamit def benn prise de conscience ci investissement bi nga xam ne moom moo war si football condition yi bu dajee rek forcément résultat bi dafay ñëw. te loolu yàlla dogal na effectivement si 2022 si. donc ñuy ñaan ndam li jik ñu yeneen étoile topp si toppaat si ba ñu yegg pourquoi pas si si coupe du monde mun na nekk euh, l'essentiel mooy condition yi dajee ñu am équipe bi je pense que du problème joueur la ñu am tey et que tamit du problème euh, jàppale bu jóge ci état moom la ñu am donc euh, yaakaar sañ nañu ko am Mbaye Jacques ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci euh, émission démb tey à nouveau waxtaan bi tey yombul ndax yaa ngi ci biir àll bi mais def nga ko macha allah te tamit jàngee nañu ci lu bëri ñu ngi lay gërëm en tout cas di la wax ne kër sa kër la aussi rafetlu également disponibilité bi nga ñuy wan à chaque fois que ñu sollicité. jërëjëf Fatou maa ngi lay woon ñu amoon mbégte lool lool ànd ci ak suñu doyan di Mbaye Jacques Diop journaliste conseiller technique en communication bu ministère des sports gërëm Diawo Diallo ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi émission mun ngeen ko teewluwaat euh, si suñu plateforme euh, réew mi officielle suñu chaîne ci YouTube euh, dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm